Thank you.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 al munfaridu kay aji wéet mooy koo xam ne kenn la nee na yàlla daf ma jëriñ jëriñ yoo xamee ne ci biir njëriñ yooyee yàlla jëriñ ma dama caa wéet xam nga boo déggee wéet mooy loo xam fekkoo ca kenn te kenn du la ca fekk waaw loolu mooy may Sëñ Tuubaa yi mooy yàlla mosu koo may kenn te bu ko may Sëñ Tuubaa dootu ko may keneen loolu mooy nafa ani nafan bihi anfaridu nixmal karimul akramul munfaridu waaw nafa ani jëriñ na ma nafxan njëriñ yoo xamee ne an farida danaa wéetee bii ca njëriñ yooyee maanaam yàlla mosul koo jox kenn te du ko mos a jox kenn rek neex ma amul morom est-ce que fexlu maadin lil matti la alkarim yàlla muy aji tedd ji alakar mu doon ki gën a tedd almun faridu tey aji wéet yàlla muy aji tedd ji doon ki gën a tedd doon ku wéet te amut koo xamee ne dañ koy misaaleeg yàlla wala muy niroog yàlla wala ñu naan ñaar la moom kenn rek la dafa wéet yàlla moomee daal moo ma jëriñ njëriñ loo xamee ne damaa wéet ca njëriñ la akramani teral na ma bi maa loo xamee ne nafa moo dàq hedaaya samay noon li xëy di nax wi ñu jëm ci fudu sama wàll wanama moo yokk moo dolli hudaaya li nga xamee ne mooy sama njub nee ne yàlla teralee na ma defal ma loo xamee ne sama noon yëpp loole yàlla teralee ma moo ma dàqal sama noon yëpp ñu daw jëm ci feneen fu bokkut ak sama wàll waaye itam loolee yàlla teralee ma ni mu dàqee samay noon noonu la doole li nga xam ne moo di sama njub su fekkee hudaaya moom nga def mooy ak njub bu dee xadaaya nag mooy ay may waaye hudaaya bi moom la xasidi gi indi ma moo dolli hudaaya sama njub ndax njub day dolleeku ni xam-xam di dolleekoo noonu lay njub du dolleekoo waaye may itam day dolleeku waaye fii moom njub la ci jublu kon ma moo dolli hudaaya sama njub kon daal li ko yàlla taralee moo dàq ay noonam mu jëm ci furut wàllam waaye moo dolli ak njubam ci waxtu ne sitta hudaaya xutta hadaaya lii biri daaya doonastikaay gis nga ca maay bu sitta hudaaya yàlla na nga dolli sama njub sitta hadaaya sitta hudaaya xutta hadaaya yàlla nag ma dollil sama njub nga kon nit ki li mu war a ñaan yàlla gën ko koo dollil mooy ak njub ndax jub bokk yi ci la lépp nekk lép rek mi ngi ci njub boo amee njub ñàkkoo dara boo ñàkkee njub am leneen amoo dara waaye boo amee jub am nga lépp wallaahi lasim ci àdduna am nga lépp alaaxira am nga lépp lu jafe-jafe la nag mooy loo xam ne jullit bu ko amee rawee na ko kudut moom rawee na ko yiifir ñi rawee na ko ñu bon ñëpp waaye loo mën a am kër yu rafet yeeg oto yu rafet yëpp am na yéeféer bu nekk ca àll ba ku la ku la gën a yées fuuf te mosoo gis ku mel ni moom ci yées te am na lu mel lu ko lu ëpp linga am ci alal kon kon ab julit njub rek la wara a tiitaroo njub rek nga war a tiitaroo ndax booy tiitaroo am nga loo xam ne yéeféer amul ko waaye loo mën a tiitaroo ci mbirum adduna rek yéeféer am na ko kon mu ngi noonu njub rek nga war a ñaan yàlla dolli la ko mu ne yàlla teer leen na ma loo xam ne nag moo dàq samay noon yi jëm ci fudul sama wàll waaye mooy dolli sama njub nee na ko loolu nag yàlla defal ma teralee ma ko mu dàq sama noon dolli sama njub nee na lool nag loolu nag fadlullahi ngëneelug yàlla de neex ma amul morom allah moom yàlla rabbi moom yi sama borom wala ilaa maa ngi waat ne amul benn buur bu yow jaamu jaamu gu du jur njëriñ ñàkk gaa jaamu gu du jur lor ilallaahu ku dul yàlla nee na loolu wax waxoon nag suñu borom defal na ma xam-xam boo ne dama ciy wéet teralee na ma loo xam ne moo dàq sama noon jëm fu dul sama wàll waaye moo dolli sama njub nee na loolu nag mbaaxu yàlla de nokk loo xam ne iktisaabi la maanaam fagguma ko yàlla dafa xool ci mbaaxam ci coobareem baax gi baax rek mu defal ma ko defal ma teralee ma loo xam ne dégg nga dégg nga moo dàq sama noon waaye dolli sama njub nee na loolu mbaaxu yàlla dong dong la te maa ngi leen di waatal ne yàlla amul benn buur bu yooyu jaamu jaamu ko du jur njëriñ ñàkk ngaa jaamu ko du jur lor ku dul yàlla koo jaamu lor loola lay gën a def ci jëriñ la yadoo la man daruhoo la alquran wax aqaru min nafi dégg nga labisal mawla wa labisal asiru kon yàlla a mat a jaamu en tey tu jox dégg nga kulliyat sama lépp sama lépp laa ko jox min rax si rabbiyal awal li ko tàmbalee ci njëlbeenu weeru gàmmu mooy boo diggee bopp mooy njëlbeen li njëkk ci nit ba mooy loolu la ñuy tuddee raxsu ci nam rek mooy fan bi njëkk ci weeru gàmmu ma doon ontari jox naa kulliyat yi sama lépp min rax si rabbiyal awali lu ko tàmbalee ci njëlbeenu weeru gàmmu sukkural cant ak sukkural aqiiri cant aji mujj ji ala awli tey aji njëkk maanaam jël naa sama lépp jox ko suñu borom mi nga xamee ne mooy kii mooy ki fee mujj bu fi lépp bàyyi koo faatu waaye mooy ki fi njëkk taan fu mu tàmbalee dégg nga nee na nag li ko tàmbalee ci weeru gàmm lépp dama ko jox sama borom ngir sant ko rek moom mi nga xam ne mooy al axiri di al awli moo tax en tey jox naa kulliyati sama lépp bàyyiwu dara istixraas la lépp lu suñ tubaam rek kulliyati ci la bokkul min rax si rabbi al awali lu ko tàmbalee ci njëlbeenu weeru gàmm sukural axiri lan la jox léppam ak kan la ko jox mu ne sukural aqiri cant yàlla muy aji mujj ji al awli tey aj njëkk kon bu la neexee fi xasri gi tàmbali woon ba tey bi mu ne axtaytu kulli lil aqiril awali sukuran yeddo min rabbil awli aqiril awali gi maanaam turu suñ borom la al aqiri mooy ki nga xam ne mooy kii mujj doon naat lépp al awali mooy fi njëkk tàmbali fu mu tàmbalee kon axtaytu kulli lil aqiril awali maanaam jox naa sama lépp jëmee ko ci yàlla mi nga xamee ne mooy aji mujj yi tey aji tey aji njëkk ji maanaam sukuran yeddo min rabbil awli cant goo xam ne day sax ba faw di bàyyi ko ci weeru gàmm saa bu weeru gàmm teroo rek sama lépp dama koy jëlee ci yàlla mi aqidi di awli mooy ki fi mujj bu ñëpp faatoo fi njëkk moom suñu borom subhanahu wa taala ta moo sàkk lépp loolu mooy ataytu mën nga ko delloo lépp mu nekk ay tur yàlla aqidi beeg awli al aqiru ak al awli ko ci turu wal aqiru wa saahiru wal baatin kon al aqidi mooy mi nga xamee ne mooy ki fi mujj bu ñëpp faatoo al awli mooy ki fi njëkk ta fekku fi dara kon nag jox naa sama lépp jëmee ko ci sunu borom mi nga xam ne mooy al aqir ak awali li ma ko jox mooy cant yoo xam ne day sax te lépp saa bu yor gàmmu teroo rek dama ko jox moom sunu borom. léegi nag kon muy di tarjumaan ji ne subhaana rabbika tur na ma sell ak buur bi rabbi linsati moom muy borom tedd nga xamaa yi ci fone walis lépp luñ koy melal ci ay doom ak i caaju. wasalaamun jàmm alal mursalin yàlla nekk ci mboolem ku yàlla mosu yónni wala am du melu sax dàkk te rafet laay aji sax la ñeel yàlla. rabbil alamin muy borom bi ne fi de nee na maa ngi tudd sell ak suñu borom yàlla muy borom te nga lépp luñ koy niroole ci ay doom ak ya caajo di ko tëqal ci xeeti naqis maa ngi ko koy danoosel di ko ko sëril ndax mustahil la ci moom jàmm yàlla nekk ci mboolem ku yàlla mosu yónni melo sax dàkk te rafet aji sax la ñeel yàlla muy borom bi ne fi de mu tàmbalaat xasit goo xam ne da koo tuddee mawliduhu fii rabbiyal awali maanaam gane gim gane jamono bu kenn lak ci ban weer la ci biit weeru gàmm la. xam nga borom xam-xam yi wuute nañ ci maanaam ni ñu wuutee tey ci bis bi noonu lañ wuutee ci weer yi maanaam ñoo xam ne dañ ne bis bi njëkk ci weeru gàmmu ci la gën a jamono am na ñu ne bisab ñaareel ba am ñu ne bisab ñetteel ba am ñu ne bisab ñeenteel ba am ñu ne juróomeel ba juróom benneel ba juróom ba am ñu wax juróom-ñett ñu bëri juróom-ñett lañ wax am ñu ne juróom-ñeent am ñu ne fukk am ñu ne fukk benn sax waaye li gën a wér kooku moom mooy fukk ak ñaar ta am na boroom xam-xam yu mag yoo xam ne dañ ne juróom-ñetteeli fan bala te ay borom xam-xam yu ñu doyloo seeni xam-xam la maa moom bisub juddi gi moom wuutee nañ ci waaye kenn du suñu mag ñi wallahi laxsim ñun dañoo am loo xam ne kenn amul ko te kenn mosu ko am ñoom dañu ñëw tënkal ñi li xew rek ak li am dañu ñëw tënkal ñi li xew ak li am mu jeex takk ixtilaaf yi lu ñuy bëri bëri la ca wiir rek la ñuy tànn la ca wiir rek la leen di yàlla xamal ñi man koo jëfandikoo mu jeex takk kon laylatu yëpp bi ci la yonentu sallallahu alayhi wa sallam gën a jamono muy fukki guddi ak ñaar ci weeru gàmmu tolloog bi sub altinam ci amul fii mu ne bisimilah sos na ma sama wax ci tuddu turu buur bi arrahmaani buur bay xéwlaa ci na arrahimi aji yërëm ko soob ci allah bay sun borom noo ngi lay ñaan bi àq waji laay ci àq sa jëmm jëw yàlla taala yow nga sax dàkk di julli wa salim te sëlmal wa baarik te dollik barke te dollik barke ala man ci kaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamee ne ensamtu màggal naa bi ci moom sala yalla nga julli allah yow yàlla taala yow mi aji kawe alayhi ci kawam wasallam te nga dolli koolu mawliduhu fii rabial awal ci biir weeru gàmm yow sunu borom maa ngi tàmbali ci sa turu allahu yow mi xëyulaa kon bépp mindeef ci àdduna tey aji yërëm ku la soob ci alaxira maa ngi dagaan teew ci xaq sa jëmb ju tedd ji yow mi aji kawe yàlla julli ak sëlmal te dolli barke ci yonent bi xam ne màggal naa gane gim gane jamono ci weeru gàmm maanaam màggal naa bisub juddoom ba daal yàlla nga sax dàkk di julli ci yonent bopp tey sëlmal ci moom ci waxtu ne kon day wane ne day sàkku ci yàlla mu julli ci yonent bi sëlmal ci yonent su ko defee nag muy xamlewaale ci biir julli goog ak sëlmal googee ne man kat mosuma diñ di màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tamit yàlla na ko julli tey sëlmal te doolu barke ala man ci kaw yonent bi nga xam ne asamtu màggal naa bii ci moom mawliduhu ganeeg jamonom fi rabbi al awal ci biit weeru gàmm sala kon nag yàlla na ko julli ala yàlla taala yow mi aji kawe ali ci yonent bopp asalaam tagu dooli ko sëlmal kon daal sëñ bi ni wax ñu xamal ne waxtu ne mi ngi màggal gane jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon lii firnde la ci sëñ Tuubaa maa ngi màggal gane jamono yonent te kan la koy wax yàlla kat la koy wax kat kon nag yàlla la koy wax kon kenn ku nekk war naa am pas-pasu di màggal li nga xam ne mooy bisu gàmmu ba weer wépp sëñ bi daan ko màggal moom bala weer wi daan ñëw rek la ko daan commencé di màggal même da koy gunge bu weeru jeexee sax du dañ weer wi ci topp sax muy rakki gàmmu da ko daan màggal ngir juddu yonent bi lim jege weeru gàmmu rek weeru safar kasaalika daa daan màggal juddug yonent bi ngir lim jege gàmm ñaari weer yi ñu ngi séqee gàmm moo tax ñaari weer yi da leen xormaaloon lool muy safar dégg nga saa bu ñëwee rek weeru safar rek yaa ngi xam ne kii kat mi ngi mi ngi jëm ay cofeelam yëpp donte heure bu ne mi ngi bëgg yonent bi tag yonent du julli ci moom waaye ñaari weer yi niñ sëmee weeru rabiul al moo tax nag waxtu wu ne da ngay gis ne mbind mi lépp da koy jëmale ci suñu borom subhanahu wa di ko sant di julli ci bi ak sëlmal di sant xéewal yi ko suñu borom defal ci weer wi di weeru gàmm mu ne min allaahi bil muxtaari qad jaatil muna hurumtu min al baaqi bihi sukra asmuna qad jaati dikkal na ma al sama mbébét min allaahi tukkee ca yàlla bil muxtaari ca darajaay ka ñu tànn ka warumtu kon nag dana ma sàkku bihi di ko jaare ci barkab yonent bi min al baaqi mu tukkee ca yàlla muy aji des ji asukura ay cant ki gërëm asmuna ci jamono yëpp nee dëgg-dëgg nag la ma doon bébét yépp ñëwal na ma ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam kana la nga doon bébét kay bu la dikkalee war nga boo amee ngor war ngaa sant mu ne kon nag ci barke bi yonent bi ci lay sàkkoo di sant suñu borom ci jamono yëpp waaw ci barke bi yonent bi ci lay sako di sant suñu borom subhanahu wa taala ndax lépp lu mu am rek weeru gàmm li cëpp moo ko ko may moo tax weeru gàmm bu ñëwee li ko yàlla defal rek moom lay nettali li ko yàlla defal mujj gi moom rek lay nettali atam yu mujj yépp bu gàmm ñëwee lu ko yàlla defal rek ndax sëñ bi nettali li ko yàlla defal ci weeru gàmm da koo neex donte weer yëpp neex na ko ca waaye nettali li ko yàlla defal ci weeru gàmm da neex. moo tax ma ne xat jaa ati dikkal na ma almunaa sama mbébét minallaahi tukkee ca yàlla bil muxtaar ci dara ko ñu tànn lu mu am lépp suñu borom defal ko ci barke bi yonent bi ci la ko defalee warumtu dana ma sàkko minal bàqe ca yàlla muy aji des ja bihi ci daraja yonent bi asukura cant ki gërëm asmunaa ci jamono yëpp. wi widaadi sama cofeelu xol wa ridwaani ak sama ngërëm wa sukuri ak sama cant bilantihaa in dañoo xasaf xamsa ga ci lurut muy am yemukaay yi boo boolee cofeel géeg ngërëm géeg cant gépp te kenn du am yemukaay donte am na fu ñuy tàmbale mu ne lii bi lépp jox naa ko sama borom walil muxtaari ak ñeel ka ñu ka man mooy ka nga xamee ne ada ah dañoo xasaf xamsa ga ada leeralal na lii ñal ma alfina samay ëtt nee na sama cofeelu xol sama gërëm gi fees dell sama xol samay cant yëpp cër yëpp sama cantu yëpp jox naa ko sama borom te benn du ci am yemukaay bu dee cofeel gi amul fu muy yem gërëm gi amul fu muy yem cant gi am fu muy yem lépp ji naa ko sama borom ak yonent bi nga xam ne sama ëtt yëpp tey bu ñu demee ba leer nañ ah nee na bi salaay salaam moo ko def de xoolal Touba tey bokk yi am na jamono lënd moon na de sëñ Touba xoolal bi mee sañ ci Touba rek ay garab la fa fekk waaw ay garab la fekk ay rab yàlla waaye xoolal tey dëkk bi tey nu mu leeree dëkk bi xool nu mu leeree tey xoolal boo demee ci jumaa ji waxtu woo demee rek yaa ngi gis leeration gi waxuma sax lamp yéen ca taal waaye bu amutoon lamp rek day leer moom <laughs> kon bëgg noonu kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam te loolu ba muy dem ci tukki ba kat yaa ngi déggoon mu ne euh, ci xasida ak mooy bu mu wax nawir finaa yi nga xam ne moo leeral ëttam nga xam ne kon ëttam ci boppam bam nekkee ci gabon ci la ko yàlla leeralal ci tagg mee tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la yàlla leeral ay ëttam yëpp bi mu nekkee ci gabon kon li rabbi walil muxtaari man lii adal finaa yonent bi sallallahu moo leeral samay ëtt li la bi ñeel na sama borom sukóor yi samay cant gis nga cantu cër baax daa am din gannaaw sama cantu xol ala nabi ma di ko jaaree ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa inni man habdun ak jaam la loxoo jëm ca moom yàlla xadiimun tey sax dàkk di liggéeyal yonent bi laa fan naa liggéey boo xam ne du jeex te kenn du gis sama morom ci liggéey bi nee na sama cantu cër jébal naa ko sama borom gannaaw ba ma ko jébalee sama cantu xol waaye lépp dama koy jaaree ci yonent bi cant xol gi dama koy jaaree ci tagg yonent bi ak di ci moom cantuk cër gi effort gi dama koy jaaree julli yonent julli bi ak di ko tagg waaye fu ma toll jaam laa ci yàlla bu koy jaamu te du ma wàcc mukk waaye damay liggéeyal yonent te du ma wàcc mukk xaddim mooy koo ne day sax takk xaddim la wax xaadim mooy kuy xëy di wàcc da ngay nelaw dangay tal nelaw da ngay tal xëy wàcc gonti yu mel noonu waaye xaddim moom amul benn benn waxtu muy wàcc moom lépp loo xamee ne xam na ne lii bu ko defee rek neex na ab sangam la da koy def kooku mooy xaddim xaadim na mooy koo xam ne fii digaloo ko du def surga bi nga xam ne dafa nekk ci kër nga ne ko demal xëy day xëy dégg nga day boo ne ko demal xëy day xëy waaye xadim nag moom ba ne ko demal xëy moom sa fajar la dem. kon li bi ñeel na sama borom sukkoor yi sama cantu cër ba daam di gannaaw sama cantu xool ala nabi ma di ko jaaree ci yonent bi lépp lu may cant yàlla ci xool ak cër ci yonent bi laa koy jaare wa inni man abdun ab jaam laa budud wàcc mukk la hoo jëm ci yàlla fu ngeen ma fekk may jaamu yàlla xadimun damay sax dàkk di liggéeyal yonent du ma wàcc mukk bi laa fanaa liggéey bi du jeex du ma a tekki sama laxasaay daani woona ma ilaa ma il muqafa jëm ci tagg ka yàlla xenculoo yoonu yonent yi fa jiitoon Muhammad yi turam mooy Muhammad xali yàlla doole nekk ci moom Muhammad moomee salaama maliki salaatu wa salaamu yàlla muy aji moom sama hubbu rabbina ki nga xam ne mooy soppeeb sunu borom ba. nee na li ma woo ma tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne mooy Muhammad moo dégg nga dégg waxtu ne mooy cofeel rek ak bëgg jëmi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg yonent bi rek moo ma woo ma di képp. bëgg jëmmam ja képp moo moo di ko tag waaye leneen yóbbu yóbbiwul ma ko ma di tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon nag yàlla maa ngi dagaan ci moom fu mu toll nay julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam tey sëlmal yonent bi nga xam ne mooy soppeeb suñu borom kon doon sop doon doon soppeeb suñu borom ma bëgg jëmm ji rek moo ma woo ma di ko tagg waaye par par loo taxul ma di ko tagg kon daani woo na ma ilaa ma il muqafa ma jëm ci tagg ka yàlla xenculoo yoonu yonent ita ko jiitoon ibrahima anni itabi millata ibrahim gis nga suñu borom loolu la ko wax toppal Ibrahima Muhammad kooku turam mooy Muhammad xëy yàlla doole nekk ci moom salaama maliki salaatu salaam yàlla muy aji moom sama salaatu salaam da ci jublu taxlib la da ko boole musana dégg nga hubbu rabbina ka nga xam ne mooy soppeeb suñu borom ba maanaam am cofeel gi am ci suñu borom ak yëg-yëg am ci suñu borom moo ma woo nag ma jëm ci di ko tagg ci waxtu wu di wax ay ngëneelam di ko luññiti ngir bi defi man ko xam li ma hadiyaatu baaqin mooy kadoo yàlla muy aji des ji maanaam hëddiya yàlla muy aji des ji ay mayam naa fi tey aji jëriñi ji tawa jaxat kuuk jëmale na ko lii ci man wa safati te sellal na lii ñal ma ataati samay topp yi mu koy topp moom yàlla wal xal ba ak xol ba wal binaa ak sama tabax bi gis nga nee na waxoon naa la weeru gàmm bu ñëwee rek day sant booy xool weeru gàmm bu ñëwee rek day sant rek day sant borom subhaanahu wa taala moo tax mu ne li waral may sant yàlla ci biir weeru gàmm li tax may tagg yonent bi ci biir weeru gàmm mooy may yàlla yi may dikkal ci waxtu wu ne di ma jublu may yàlla yuy bëbb di ma jublu waxtu wu ne di ay xëdd yee bay ko jàll di ñëw ci man moo tax te nee moo sellal topp gi may topp yàlla sama xol bi ak sama tabax bii may jaamoo yàlla dégg nga lépp may sun borom yi moo ko sellal ci saahir ak ci baatin ba lenn loo xamee ne mën naa yàq maye wala mën na maa gàllankoor amut ci kon li ma woo ma tagg yonent bi mooy yaatu bàqin may yàlla muy aji des ji nga xamee ne naa fexeen tey aji jëriñe ji tawa jaxat ku jëmale na ko lii ci man mayam yim jëmale ci man moo tax wasafati te sellal na lii ñal ma attaati topp gi wal xal bi ak xol bi wal binaa ak li nga xam ne mooy tabax bi. tabax bi moom lim ci jublu rek mooy jàkk wala benn muy juuma waaye jublu ci comme tabax yi nga xam ne mooy tabax yi nga xam yi nga xam ne dañ koy tabax ngir di fa nelaw wala ñu di fa nanga waaye bu waxee tabax rek moom ci ay mbindam benn juuma rek la ci nam képp képp la ci nam bu jaamoo ko yàlla rek la ci nam moom Sëñ Tuubaa mu ngi noonu kon tegaat ci. ne falaahi wa irsaadi wa kawni muqaddaman atadni min almuxni bi ma xillahu sana falaahi sama texe wa irsaadi ak irsaad gi nekk ci man muy jub gindeeku teg ci yoonu siraatal mustaqim lay Sëñ Tuubaa moo yéeme lii moom rek moo ko ñemee moo ko ñemee garantal boppam jàng ci xasida rek lisaanu suguri mu ne laqad badaali kawnul hudaali xaw ma kan waaye man Sëñ leer na man nañ ne ku jub laa leer na ma nañ ñi ku jub laa te maa ngi leen koy waatal nag ku jub ko ci laa loolu suñ tubaar ku ñëwee garante moo tax mu ne sama texe ak irsaat gi nekk ci man jub kocc dégg nga njubug irsaat njubug irsaat irsaat la yor nag nga xam ne suñu borom moo ko teg ci yoon wa kocc te dootul dëngati kooku may njubug irsaat mooy koo xam ne moom mukk falaa moom mooy koo xam ne dangay texe ba faw dootoo texe di mu ne falaa yi sama texe wa irsaat yi ak sama jub ba faw wa kaw nii sama nekk ak sama nekk muqaddaman doon ku ñu jiital ci ñëpp nee ne attat nii dikkal na ma minal mox nii tukkee ci yàlla muy aji doyluloo ku ko neex fa moom bi ma xin dikkal gi nag ci darajaay aji far kéeféer ji nga xameen loxo koog ñeel na ko moom kottu asana tagg yi may tagg ak i kañ nee na texe gi ma texe ak jub gi ma jub te dootuma dëngati ak doon gi ma doon ku yàlla jiital ci ñuy liggéeyal yonent bi ñëpp nee na loolu mi ngi ma dikkal ci darajaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamee sama tagg yëpp ci moom laa ko jëmee waaye nag mi ngi bàyyi ci yàlla muy aji doylu loo ko ko neex moom kon yàlla moo ko xamal na ko teexee nga jub nga te jiital naa la ci mboole bindee fi kooku moom mu ngi noonu mu xaddaman la wax ata nii minal mux ni bi maa in la ko sana kon ca yàlla la bay ko mais ci darja yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la jaar mu tegaat ci yuwasilu lii maa sarrani laaxu bi nabi alayhi salaatu ma salaamin bi leen sira xam nga li ngay rek mooy li ko yàlla defal lépp ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ma ne yuwasilu dana eggale lii jëmee ci man maa sara ni lépp lu may kontaanloo lu may bégloo allahu yàlla waaye nag bi nabi ci barke bi yonent bi xali yàlla doole nekk ci yonent bi salaatun julli maa salaamin gàndu ko sëlmal goo xam ne bi leen si naa ci lu may wane gannaaw di bàyyi julli ga ak sëlmal ga dégg nga nee na suñu borom mii allahu waxtu wu ne daf may jox lu may bégloo faw ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla maa ngi dagaan ci moom mu julli ba faw ak sëlmal ba faw dégg nga julli goo xamee ne ak sëlmal goo xamee ne maanaam sax day sax rek loolu mooy salaatul maxsaan bi leen sina bi leen sina mooy julli ba yàgg wala sëlmal ba yàgg nga bàyyi kooku moom du ci am moo tax ma ne alayhi yàlla na doole nekk ci yonent bi salaatun julli ma salaam ga àndug sëlmal bi leen sina ci ak wane gannaaw nga xam ne julli gi day ñëw sëlmal gi di ñëw rek waaye nag du mos a dakk mu ne radiitu anil baaqi wa an xayri xalqihi muhammadin il man saanani huna radiitu gërëm loo naa anal baaqi walis yàlla muy aji des ji waxan xayri xalqi walis ki ngeen ci mbindeef yàlla yi muhammadin turam mooy muhammad al muxtaari mooy ka ñu tànn ka man muhammad mooy ki nga xamee ne saana nii protése na euh, huna fii ma nekk protése na mooy aar na ma fii ma nekk man mooy ki nga xam ne saana nii aar na ma huna fii ma nekk di bindi xasida gi nee ne gërëm naa suñu borom ñi fee sax te du faatu gërëm naa ngeen ci mbindeef sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñëpp bég naa ci ñoom xam nga yàlla lim ko defal li ko yonent defal te booba léegi moom lay nettali may yooyu kon foofu mu gërëm leen moo tax ne gërëm naa suñu borom muy aji des ji gërëm naa ngeen ci mindeef mi nga xame ne mooy Muhammad mooy ku yàlla tànnal boppam ca tànnuwaay ba mooy ki na xam fii ma nekk de moo ma protéger moo ma aar lenn luy lore du mu fi fekk ma ko badaaliya anna allaha la rabba xayruhu wa anna nabiya al mustafa al kayda waxana nee na ba daal leer na nañu liye ñeel ma anna laaha naka yàlla laa rabba amul benn buur xayruhu ku dul moom sëñ tuba ku mën a jox uluhiyatu yàlla la tawhidul uluhiya dafa bari ci xasida yépp la am tawhidul uluhiya maam dafa ne yàlla rek yàlla keneen du yàlla beneen yàlla ku wutee nag firawna mi ko doon woote naan maalakum min ilahin xayri bay woote rububiyya naan ana rabbakumul axla yàlla yàlla musal ci yow sëñ bi nee na badaliya ana laaha laa rabba xayru man daf maa leer nañ na yàlla rek mooy yàlla ku yàlla doonoo yàlla wa xayrullahi lillahi lu yàlla rek ci biir yàlla ngay dugg yàlla la sak kon ba leer na nañu lii ñel ma lii ñel ma an la laaxa naka yàlla ca dëgg dëgg dëgg naka yàlla ca dëgg dëgg <laughs> dëgg laa amul benn buur xayruhu ku dul wa an na nabiya naka kañu soloo ko al mustafa kar kuñ tànn alkayda dégg nga pexe mañ ma doon pexel waxanaa kuug doxodal na ko dégg nga bi ma leere na yàlla rek kay yàlla dama wëlbatiku jëm ci di ko jaamu waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam mboolem pexe yi ñu ma doon pexel yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo doxatal xeetu pexe yi amul menn pexe moo xamee ne pexel nañ ma ko ba noppi pexe ma sotti pexe ma lor ma yonent bi mooy danoo si pexe yëpp moo leen doxal day bàyyi ba noon yi créé seen pexe ba noppi sëñ Tuubaa neen yonent bi daal di far pexe yëpp dal di nakkal pexe yëpp doxatal pexe yëpp wa anna nabiya naka ka yàlla soloo ka ka yàlla jox xam-xamu nubuwa al Mustafa kada kuñ tànn al kayda pexe mañ ma doon pexel yëpp waxanaa ku doxadal na ko mboolem xeeti pexe yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko doxalal. ya umu dana jublu janaabi sama wàll. al bisru mbég. min kulli wiccatin fu ngeen ko fogeewul rek. min kulli wiccatin tukkee ko ci bépp wàll. réew yëpp ñi ngi bëggee sëñ Tuubaa di rot ci dëkkam bi. ta bari na fu waay mën a nekk te mos ku xam senegal sax mi ngi bëggee sëñ Tuubaa. la ko may yëpp mooy tukki géej gi. ya umu janaabil bisru min kulli wiccatin ya umu dana jublu. faw janaa bi sama wàlla albisru mbég min kulli wiccaatin tukkee ci bépp wàlla ilaa jannatil baaqi ba ke rek maanaan porox ci aljana yàlla muy aji des ji alla ci yàlla mi nga xamee ne xaada wamatal na lii ci man xin naa koom koom mu bari fii ba ke rek may tàbbi aljana nee ne fu ngeen defee ne amul ñu rek am na réew mu ngeen dugg rek am na ñu fay bégee mbégteem borom day bay ko ci bépp wàll di may jublu ba kerek may tabi aljana yàlla mii aji des ji yàlla mi nga waxtu ne daf may womatal li nga xam ne moo di koom du ma jeexal koom mukk lu suñu borom womatal womatal na ma leneen lu féete ko la ma njëkkoon womatal halallahi usni maadihan xayra mursali alayhi salaama man lahul fadlu wal xina mu ne usni dana ma kañ kañ xalallahi yàlla xam ba baatab sanna bokk bokkut mat matfu sana mooy lépp loo wax rek bu doonee dëgg ca yàlla kooku sanaawu la mooy dangaa fekk lu am ca yàlla ba noppi nga di ko saxal loolu maanaam baataf sanaawu bu dee tagg danañ ko jëfandikoo ci baat yu bari ay poson lu mat fukki anam ak juróom-ñett wala lu ko yoo xam ne lépp ci ay xeeti baatab tagg la waaye bokk dafa dañoo am ay teqantal waaye sanaawu moom moo moo leen féete kaw mooy koo xamee ne la ngay wax ci moom dafa nekk ca moom. moo tax sëñ bi ne usni dana ma tagg xalallaahi yàlla maa di xan usni dana ma kañ xalallaahi yàlla maa di xan mbir moom may aji tagg xayra mursali ki ngën ci ku yàlla yónni ñëpp ñu yàlla yónni ñëpp kan moo ci gëm yónent bi salaasam kon xayra mursali mooy ki ngën ci yónent yi xali yàlla doole nekk ci moom yónent boobee salaama man salaatu wasalaamu yàlla mi nga xamee ne loxo moom yàlla dong moo moom alfadlu lu ñuy tuddee baatam gëneel wal xina ak koom nee fu ma toll damay kañ di wax ay rafet rafet lépp loo xam ne lu sax la ci yàlla rek ma di ko dàqal lépp luy xeeti naqis yàlla boo koy kañ loolu la mooy koy dàqal lépp loo xam ne xeeti naqis la di wax lépp loo xam ne lu yàlla la ci jëmam ja nee na fu ma toll damay kañ yàlla di tagg yonente bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne mooy ki ngën ci yonente yëpp yàlla yàlla julli ci moom yàlla mi nga xamee ne moom moom ngëneel moom koom salaatu wasalaamam yàlla na koy dott ci kaw yonente bi sallallahu alayhi wasallam bu dee ngëneel yàllaa ko moom taw anal la bi yadillahi yuti man yasaw yàlla ne ngëneel maako moom maa koy jox ku ma neex tamaay borom gëneel moo tax sëñ bi dellu si waat baat bi fii ne yàlla mooy ku moom gëneel yàlla nee na koom maa ko moom tamaay ki doylu maay xool ku ma neex ma jox ko koom maay neex ku maay xool ku ma neex ma jox ko wërsëg wala fadala baxdukum ala baxdin fii risqi famaa lasina fuddiloo bi daadi risqihim kon suñu borom mooy joxe wërsëg inna rabbi xaniyun karimun mooy ki doylu mooy ku tedd ki kon ya ayyuhan naas antumul fuqaraa ilallaahi wallaahu huwal ganiyyul hamiidu ba tey mi noonu mu ne isaa ma madaxtul mustafa fustu suratan bima lii am na wa safo wal janaa isaama madaxtu saa bu ma taggee al mustafa kañu tànn ka fustu danaa tuufu fustu mooy risintan maam loxol boo ko defee gis ci risintan léegi fustu danaa tuufu surxatan ci lu gaaw bi maa loo xamee ne yaquudu dana indi lii ci man al am na sécurité wa safa ak sell wal janaa ak kottiteef kottiteef mooy wittin maanaam bu dee wajanal jënatey ni daanin jàng ko maanaam loo xam ne daal ay miñit la yu ñuy wicci loolu mooy janaa mooy janaa loo xam ne daal xeeti ñam la yu nekk ci aljana yoo xam ne dañ koy wicci di lekk nee nag man bu ma taggee yonent bi ci gaaw suñ borom ci biir tagg yi ma tagg yonent bi la may indil résultat loo xam ne moo may indil sécurité ak sell ak ak ak kottitéef ya mooy wicci wiccin wiccin ya muy meññit ya nekk aljana te jege saa bu may tagg yonent bi rek suñu borom mu ma koy ñoddil muy jege si isaa ma ma dem te saa bu tagg al Mustafa kañu tànn ka fustu damay tuufu suratan ci lu gaaw damay am ci gaaw bi maa loo xamee ne yaquudu dana womatal lii indi ci man al am na sécurité safo ak sell wal jana ak ak meññiti aljana te mooy wittin mooy meññit yi nga xamee ne bala nga koo lekk da nga koy witti ba noppi gis nga meññit lu demee tàndarma lu mel ni raisin da nga koy witti doo ko mën a lekk waaye doo ko fekk rek fa mu nekk rek nga di ko lekk rek kon meññiti garab yi dañ koy witti loolu nag aljana daf caa am wajanal jënatee ni daanin jàng ko ci defe naa suuratu rahmaan ak yeneen barab muy meññiti aljani dañ koy wicc di ko lekk. kon bi maa la yaqudul am na wasafal janaan nee na man li ma koy may nag ba man ko am muy ngi noonu lenn rek la mooy damay jël sama xalima tagg yonent sallallahu alayhi wasallam rek résultat bi ci lu gaaw lu ñuy tuddee sécurité dama koy am lu ñuy tuddee sell dama koy am lu ñuy tuddee meññiti aljani ma di ko witti dégg nga di janoog moom di ko witti ah nee na loolu may tagg yonent bi résultat bu gaaw laa ci am. liyan qaada fi matxi nabi sayidil wara saidun wa ishaadun walam yej ni man jana mu ne in qaada womatu na womatu coobarehu li liye ñëw ci man fii mat ina bi ci tag gi may tagg kañu soloo ko sayidil wara kay sanga mbindeef kan ma womatu mu ne saidun aji texe dégg nga aji texe maanaam womatu na womatu coobarehu ñëw ci man lan moo ko waral bind gi may bind xasida yi di tagg yonente bi wa ishaadun akuk texe walam yej ni walam yej ni te du tooñ mukk du ma tooñ mukk man janaa koo xamee ne ab tooñkat la gis nga janaa bee maanaam bokk ak janaa bi janaa bi moom maanaam tooñ lay tekki mu ne nag te gi may teg yonentu sallallahu alayhi wasallam képp ku nar a texe ci ngay wom motoo ñëw ci man mooy la waaj ji waxoon rek Sëñ Tuubaa boo ko bañee doo liir xaside yi ndax boo gisee ni muy tagg yonentu te nga bëgg yonentu foofu da ngay bëgg Sëñ Tuubaa alaa kulli yàlla moo tax mu ne nag ki aji texe womutu coobare xoom ñëw ci man lenn rek waral ci tagg gi may tagg sangub mbindeef yi dégg nga ak tax itam womatu na ñëw ci man tey képp kuy tooñ képp koo xamee ne day tooñ suñu borom musal na ma ci yow nga képp kuy tooñ rek yàlla musal na ma ci yow ba dooma tooñ kon in xaara womatu na womatu coobare li ñëw ci man fii mat si bi ci tagg gi may tagg ka yàlla soloka ka sayyidil wara kay sangub mbindeef yëpp sa saidun aji texe moo womatu ñëw ci man wa ishaadun akuk texe walam yej ni te du tooñ mukk di jëw di ñëw ci man dégg nga man janaa koo xamee ne ab tooñkat la képp kuy tooñ rek suñu borom musal na ma ceew waaye kuy texe ku texe rek koo xam ne wóor na la ne am nga ak texe ba faw comme ni ma texe kooku ci teg gi may teg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ngay womato womatu coobar yi ñëwal ma jox sa bopp ataani na ma salahul qalbi defaru xol wal ak baxalug yàlla warida ak ngërëm minallahi gu tukkee ca yàlla lil muxtaar yi ci darja ku ñu tànn ko la ma dikkalee lam yen xun yi dootu ma jublu mukk alxanaa coono wallaay laxasim gis nga dafa am loo xam ne boo fa yeggee rek coono jeex na coono jeex la rek la tudd mu ne nag lu ñuy tuddee xool bu defaroo xool boo xamee ne defaru na ba noppi dootul yàqooti am naa ko ngërëmal yàlla ak baxalug yàlla yàlla dootuma toppee dara lu mën dootuma ko toppee waaye ngërëm lu bàyyi ci yàlla itam am naa ko ci dara jàkk ñu tànn moo tax mu ne coono jeex na lam yeen xun yi ana ko ku daanee la day xam ne gis nga sa xool bu defaroo nga am xafu ak rida te lépp mina layi maanaam lépp loo mën a def suñu borom baal na la ko waaye nag day fekk nga sax ci yoonu siraatal mustaqim am na waaye nag waxuñ koo xamee ne day mooy yàlla rek ñu naan yàlla baal na ko déedéet kooku moom njeelu yàlla ci la nekk mooy koo xam ne dafa sax dàkk ci njuk am na ñoo xam ne bu ñu taxee dàkk ci njub lépp luñ defate rek ci xeeti rëcc rëcc moom yàlla jigal na leen ko bala ñuy ko tuub yàlla jigal na leen ko kon nag boo tollee foofu am aafu am salaawul xal bi am ridaa lépp bay ko ci yàlla kooku moom coono jeex na lay tudd waxaa kalkali ilman min allahi jaani bi kawni qadim al barri la altaqi ana wa a na kalkali sama xol xel man xam-xam yooyu min allahi gi tukkee ca yàlla la jaani ñëwal na ma bi kaw nii ànd ak sama nekk qadim al bari di liggéey katub aji baax ji laa altaqi duma dajee ti mu ko xanaa lenn luy coona leneen dikkal na ma xam-xam yu bàyyi ko ci yàlla ñëw ci sama biir xol maanaam xam-xam boo xam ne dootuma ko fàtte mukk yàlla ca yàlla la bàyyi ko mu sóob ko sama biir xol mu wëttu ko te ko fàtte waaye itam ànd koog doon gi ma doon liggéeykatu ki nga xam ne mooy aji baax ji di yónent bi sallallahu alayhi wasallam nee na liggéey bi mi koy liggéeyal moo tax duma ma dajeeg benn coono booy liggéeyal ku yàlla gërëm walaay loo liggéey liggéey doo yëg ne coono co coono yaa ngi koy daj booy liggéeyal sëñ Tuubaa loo liggéey liggéey doo yëg ne coono ba yaa ngi koy daj ndax coono bépp day mujj jur bànneex waxaanil asa wal makra wasu asarmadan ilahi bi maxdoomi wali awsalal muna waxaani fegal na ma alasa lépp luy lor wal makara ak pexe wasuwa ak lu ñaaw sarmadan faw kan ilaahi sama borom bi max doomi ci dara jaay ka muy liggéeyloo ko wa aw salata eggali na lii jëmee ci man almunaa sama mbibit nee na suñu borom fegal na ma lépp luy lor ak pexe ak lu ñaaw faw faw laa wax nag yàlla fegal na ma lépp ci dara jaay yonent bi nga xam ne mooy max doom mooy ki yàlla de liggéeyloo moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg ki nga xamee ne jox na ma lépp lu ma doon mbébét moom sama borom subhaanahu wa taala ci barke bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam waaye fegal ma lépp lu lor ak pexe ak lu ñaaw ci barke bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam li rab bi ñeel na sama borom dong binaa i sama tabax bi wax duhoo dong laa li xayrihi <laughs> yoonu keneen nekkul ci jaamu moo ci keneen laa li xayrihi maanaam ñeexalul keneen ku dul yàlla tabax bi yàlla rek wuur di te danaa gërëm loo bii ci biir tabax boobee al muxtaar ka ñu tànn ka insa andeem soob na yàlla asmu naa ci jamono yëpp nee na gis ma tabax yalla rek la concerné maanaam yooni keneen nekkul ci rek laa ci jaam moom laa ci tudd waaye du ma ci tudd keneen du ma ci jaamu keneen keneen amul ci wàllu te bii tabax bii tabax lu tax ma tabax ko dama bëgg yonent bi bëgg ci kontaan ci jumaay Tuubaa yonent bi bëggul ci tey jumaay moo dem ci Tuubaa jumaa jumaa tabax na taxaw na fa ñaari soral ñett ñu fa taxaw loolu yëpp yonent bi saasam da ciy bëgg kon loolu mooy li bi binaa i wax doo laali xayrihi waxe sëñ Tuubaa jamono jam koy wax léegi lay doog a fireeku wa urdi bihil muxtaaru insa asmuna kon li rabbi ñeel binaa i sama tabax bi wax doxo moom kott laali xayri ñeelul keneen kurut moom wóote danaa gërëmloo bii ci biir tabax bi almuxtaar kañu tànn ko di yonente bi insa an dem soob na yàlla ci jamono yëpp yonente bi daal waxtu ne bu soobee yàlla ci jamono yëpp dama koy bégloo ci tabax bi waaye tabax bi moom yàlla rek ko tax a jóg keneen taxul koo